ahousu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen ziare di ñaan sunu kàddu fekk ñépp ci jàmm lii nag tey jii la ci fa ñuy wax Sicap Foire muy kër Aïda Diallo mu fa doon màggal guddik Saint Valentin mu tombe woon nag bi ko sëriñ Béthio seexalee gis nga jigéen ñi ak góor ñi sukk ci kanamam di ko siyaare sukk seen bëti om mu mel na kon moom la ko sëriñ bi doon aaye ku ne sëriñ bi kii bàyyi na lii jegewu ko bàyyi ndax yéen a ngi jàkkaarloog moom lam nekkoon nag fasu ko yéenee baax kon nag nun taalibe sëñ Tuubaa yi nañ am fulla ak fayda te xam ne ay Aida Diallo comme kii fi nekkal sëñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha tere na ko mu të nun taalibe yi am nañ ci responsabilité sëriñ bi la ko waroon def na ko mooy yëkkati na kàddoom naqarlu li nga xam ne lislaam a ko naqarlu kon nag nun taalibe sëñ Tuubaa yëpp am nañ ci beneen taxawaay ndax saint li ko indi mooy góor la woon ak jigéen yu jaxasoo woon di sëy di dund li ñu naan ak mbëggante te duñ sax ay jullit far ku mën a tuddoo saal yu Mbacke nag tuddoo Serigne Touba tuddoo lislaam di def lii kon jullit yëpp am nañ ci responsabilité li tax ma coupé son bi nag. mooy Serigne Saliou mi ñu ciy tudd ak barab bi ak fii ñu nekk di tudd Serigne Saliou looloo tax ma coupé son bi ngir dugal ci sama kàddu bopp waaye ku xool ponkali góor ñi ak ndaw si ni mu def xam ne daray lislaam taxu